الورى تدرم لأوليائك معا ليشفعوا sunu mbokk yu tedd yi nii déglu seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu su ngeen jàkkaarloo ak ñun ci jamono jii ci pak bu sell bi ci Tuubaa guy mbind jàkkaarloo ak sang bu sell bi Serigne Bachiru Mbakke moom Serigne Cheikh Thioro Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Amin waaye mu fegoo ak njaboot gépp feggoo ak soxna Fall Mbacké feggoo ak magi taalibe ak jëwriñ waaye mu dend ak Serigne Abdoul Aziz Ahmed feggoo ak Serigne Mourtada moom Serigne Abdoul Khadim seen xel dana war a dem si bisub sunu jàmbaar ja murit saadix ba kenn si njabootu Xaadimu Rasul kenn si njabootu Cheikh Mouhamadul Amin mooy bisub Serigne Cheikh Thioro Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Amin Murid Sadiq ba bis boobu nag ren di ndigal lu bàyyi koo ci Serigne tuba Serigne Mountakha Mbacke xalifa général kullu murid mi ñëpp di ñaanal fan wu gudd lool wu ànd ak wér yaram jaar nag ci Serigne Ahmadul Mukhtar xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha ñëw ci Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Sidi Mukhtar jëwriñu Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke ñëw nag ci Serigne Bachir Mbacke moom Serigne Cheikh Thioro mu ànd ko ak njaboot gépp mu war a doon gaawu ñaar fukki fan ci weeru juillet 2019 fii ci Touba Guy Mbind waaye xam ngeen ni mbokk yi bis boobu at mu jot bu jublusee dana am ay xew-xew yoo xamee ni si dañu koy taxawal ngir wàccaayu bis bi looloo waral alarba fukki fan ak juróom-ñaar ñu fas yéenee amal plateau bu am solo ca kër Serigne Cheikh Thioro Mbacké moom Serigne Bassirou Khoudia Dieng di kenn ci kër gi waaye alxames fukki fan ak juróom-ñett nag di jataayu murit bi nga xamee ni si sëriñ bi baaxoo na ko woote at bu jot bu ñu nee ginnaaw suba la màggal gi gaawu nag ñaar fukki fan ci weeru juillet di màggal gi sëriñ bi di ko yëgal mbokk yëpp ak wóolëre yëpp ak am di jàmm yëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn loola waral ñu teew fii ci kanamam nag fas yéene yëkkati kàddu yu woote. ñu ngi dellu di sant yàlla subhanahu wa taala moom mi ni may nu dellu fekkee bis bii di bis bu tedd di bisu jàmbaari lislaam jëmm joo xam ne ni tànkam yépp ci sariya ak sunna la ko tegoon te mu bokk ci gaa yàlla yooyu nga xam ne dañuy wax ne ku leen fàttaliku aw yiw dafay wàcc inda zikri zalihina tanzilu rahma di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di sant Sëriñ Tuubaa bu baax a baax di yeesal suñu yaakaar ak suñu kóolite Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke di ñaanal sëriñ Mountakha Mbacke xaadimu rasul sunu borom may ko fan gudd wéral ay cëram mboolem sumb ak naa li mu sumbal lislaam sumbal ko xaadimu rasul yëpp mu yàggale ko ànd ko ak njabootuk sëriñ Tuubaa gépp di ñaanal Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne mooy xalifatu Cheikh Mouhamadul Amin Baara sunu borom sàmm ko ci wéral ay cëram. ba mboolem naal ak nisër yi way juróom ya jiitu woon yëpp mu yeggale ko ba yeggale naali boppam ànd ko ak njabootu cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke gépp di ñaanal cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moom la sunu boroom teg ci boppu njabootu Serigne Cheikh Thioro muy seen kilifa sunu boroom sàmm ko ca aar ko ca wéral ay cëram ba mboolem yéene ak naal ak nisër yu Serigne Cheikh Thioro tàmbali woon yëpp mu yeggale ko. ànd ko ak njabootu sëriñ Cheikh Thioro gépp góor ak jigéen mag ak ndaw ci turu Cheikh Mouhamadul Moussa Mbacke mi nga xam ne mooy xalifatu Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke maa ngi woo bokki jullit yëpp bokki taalibe bi yëpp ci bisu jàmbaar ji nga xam ne waxtu wu ñu àggee ci jamono yi dañu koy fàttaliku di ko ñaanal itam ci yooyu yëpp charia ak sunna la ndax sunu borom bi subhanahu wa taala moo wax ne wa zakir fa inna zikra tanfaul muminina ca loola mooy sharia yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne addu'a yanfaul mayit fil xubur loolu di sunna kon moo waral ñuy woote bis bi di fàttaliku fàttaliku dañuy wax ne la ca ëpp solo mooy la ñuy fàttalee na nekk luñ mat a fàttalee ka ñuy fàttali itam na nekk kuñ mat a fàttalee ca kenn ku nekk xam ne ne Serigne Cheikh jëmmam ci boppam rek ñu mën di fàttalee la wax lu ne saa su ne ndax fa mu tegoon tànkam ci sunna ak sariyan mu nekk royuwaay waaye itam la mu nekkoon di ak njulit ak lislaam akuk taalibe ak liggéeykat loolu itam lu mat di fàttalee la loolu mooy sababu bis bi moo tax sëriñ Moustapha Mbacké ne naa bokki jullit yëpp bokki taalib yëpp ñu teew ci bis bi ndax loolu itam wuy si woote bi yàlla la subhanahu wa ca sunu boor bi moo waxoon ne istajibu lillahi wa li rasuli isa daakum li ma yuxiikum ca kenn ku nekk xam na ne allazina stajaabu lahumul xusna al xusna nag buñ ko waxee mooy allazina amanu wa amilu saalihaat tuuba lahum wa xusnul maab ma ab jooju nag moom la seex Muhammadul Mustafaa yi ne bokki jullit yëpp bokki taalib yëpp ba tax na mu ne naa woote ci turam ak turu njabootu cheikh Mouhamadul Amin Baar Mbàkke yëpp bokki jullit yëpp rawatina bokki taalib yëpp rawati ñi nga xam ne dañoo askanoo ci kër Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacké ñu xam ne bisub lislaam a ngi nii bisub jëmm bisub bisub euh, taalubee ngi nii bis la boo xam ne daal képp ku ci ñëw mën nga cee jëlee fajug aaju saahiran wa baatinan te muy wax ne képp ku fi teewit moom nga fi teewal kon nag ci ndigalam mi ngi wax bokki jullit yëpp bokki taalib yëpp képp ku ko yàlla man lo na nga ñëw teew si ci bis bi ànd ko ak Serigne Bassirou Mbacke ak njabootu Serigne Cheikh Thioro yëpp ñu ànd ko def ko nañu ko daan defee ba am ndigalul yeweeku ñaanat yàlla subhanahu wa taala fekkewaat ko diwen bokki julli bokki taalu bi ñoo ngi leen nuyu nuyu ba gën a sell ba gën a màgg mu jóge ci Cheikh Mountakha Mbacke xalif général des mourides wàcc ci sëñ Ahmadou Makhtar xalifa Daaru Xuddoos ñëw ci sëñ Moussa Mbacke jëwriñ ci sëñ Baara Mbacke ñëw ci suñu jëwriñ yi nag Cheikh Mamadou Bassirou Mbacke leen xamal ne bis bii de saa bu ñëwee danoon fi toog di baaxoo wax ni nan fa nan ko daan doxe man nag samay wax <clears throat> ci taalibe lay jëm yenn waa daayira bi daal ma te soxna Fall Mbacke di suñu jëwriñ ak maam say ak soxna nday ñëpp ak soxna sooda ak mbooleem jigéen ñépp noo ngi leen xam ne bis bi dellusi na nañu ko daan waajal nañu ko waajale noonu bis bi nag bisub sëñ Cheikh Thioro la ku ne xam na ko sëñ Cheikh Thioro képp ku xam mbaa nga xam nga njekk ak teraanga rek moom moom moom la daan doxal. kon yéen yi nga xam ne yéen daayira Bilaal Xidma tàmbale ci Cheikh Diagne mi président bi ak Déthié Diop moo xam ne moo ne ci itali te Abdou Niang teewal leen fi ak mboolem résident organisateurs yi ak mboolem euh, secrétaire yi ak trésorier yi ak membre yi ñëpp bàyyuma kenn su ma limee dul mat. waaye kenn ku ne na nga jàpp ni tudd naa sa tur nanu jóg nag te xam ne bis rek la am noonu sëñ Cheikh rek mooy suñu bunt Serigne Touba ndax moo boote di sëñ Baara Mbacke sëriñ Baara boo leen tudd xaadimu rasuul taala bi kon bis nañ ko daan defee nanu fexe bu ñu defoon fukk nan def ñaar fukk mbaalu góob kon sëriñ Bassirou Mbacke mi xam ne mooy sunu jëwriñ nanu xool ci moom ndax moom kat bu nu xoolee ci moom dana gën a góor lu baax ndax it dégg ngeen ba tàyyi fii mbirum sëñ Tuubaa mi waaye dama naan Cheikh Bara laajuma kenn dara bu laaj kenn dara man li ma am sëñ Bara na ko def ku ma jox mbaam ku ma joxul mbaam waaye nag nit ki de boo àndee moom te la lam yor nga bëgg ca dama ne bu defee defal waaye bu la nee toogal te boo toogee mu def ko it boo lëgee bu ñu fay doo foy kon noonu waa dëgër bi noo ngi ñaan ci kàttan yàlla sëñ Bara Mbàkke yàlla na ko teew ay déwén i déwén déwén di sant mbooloo mépp di sant sëriñ si sépp mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki biir réew ak bitim réew ndigal jóge na si cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général jaar si cheikh Mouhamadul Moustapha xalifa cheikh Mouhamadul Amin Baara wàcc si cheikh Mouhamadul Bachir mi xalifa sëriñ Cheikh Thioro ak mboolem njaboot sëriñ Cheikh Thioro gépp su ngeen gisee jotaay bi xam ne ñu ngi dëdmal bis bu rëy bis bu mag di bisub ñaan ak a fàttaliku kenn si nitu yàlla yi kenn si jàmbaari sëriñ Touba yi cheikh mo euh, sëriñ Cheikh Thioro ibnu cheikh Mouhamadul Lamine Baara ibnu Xaadimi Rasul bis boobu war a ñaar fukki fan si weeru juillet atum 2019 ñu leen di fàttali nag bis bi nga xam ne mooy jotaayu murit bi nga xam ne bis la bu ñu lay taayale màggal gi si alxuraan ak ñaan ñu ngi si ñëpp si turu mboolem sët sëñ Cheikh ñu ngi si woo mboolem daaray kaamil fu mu mën a nekk si biir réew mi ak bitim réew ak kuréelu xasida waa ndakaaru te bu tuddee sëriñ Cheikh Fall jëriñ mi jiite kuréelu ndakaaru yi mën a ñu ngi si woo itam kuréel bi nga xam ne ñooy guddi xasida gu nekk Touba Pikine marché 5 ñu si woo di woo xam ne yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad lay woo si bis bi di la woo si jotaay murid bi nga xam ne bis bis la bu ñu lay taayale màggal gi si alxuraan ak ñaan ak ak ak ak xesaayit jëmee ko si jàmbaar ju màgg jooje nitu yàlla ku réy kooku di Serigne Cheikh Thioro kon képp ku dégg suñu kàddu na xam ne mooy ab booteem mooy ab soññam. ñoo ngi leen di nuyu ci turu Soxna Fall Mbacke bintu Serigne Cheikh Thioro euh, bis bii nag bu jub seetee muy màggalu Serigne Cheikh Thioro gi ci la fas yéene yëkkati ay kàddoom jaarale ko ci man di woo képp koo xam ne bokk naa ak yow maam maaram mi ngi lay woo ci bis bi. rawatina njabootuk cheikh Mouhamadul Lamine Baara Mbacke gi nekk guy mbind di woo tamit bépp tund wi nekk Kajoor Njàmbur ak Jolof ak fépp fu waay mën a nekk ci àdduna soxna Fall mi ngi lay woo ci bisu waa waajuróom yi nga xam ne amul lu dul moom ànd ko ak uh, ay rakkam ak i magam di ci woote uh, di bis bi tombeek ñaar fukki fan ci mois de juillet atum 2019 soxna si mi ngi ciy woo ñëpp di ci woo ñëpp di ñaan ñëpp fekk leen ci jàmm. li leen di fàttali nag mooy bis bi nga xam ne at mu jot jëwrinam ji nga xam ne moo ko fi nekkal di ñaan yàlla mu yàggal ko fi loolu te wéral ko di ko amoon wi bisu diine di bisu lislaam waaye di bis boo xam ne da cay fàttaliku Serigne Cheikh Thioro Mbacke loolu nag la ñëw di leen ko fàttali mbooleem njabootu Serigne Cheikh Thioro gi yëpp dem ñu ngi koy fàttali mbooleem njabootu Serigne Touba gi yëpp. góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiguñu kenn li ko tàmbalee ci njabootu sëriñ Modou Moustapha ba ci njabootu sëriñ Mourtada Mbacke bàyyiguñu kenn mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gi nga xam ne ñu nag ñoom ñoo bokk bis bi dafay mel ni ki bu ñu leen soññee soññ suñu bopp lañ ndax sëriñ Cheikh Thioro ku ko xam xam ni kenn la woon ci mboolem njabootu kër sëriñ Bara gi yëpp kon sëriñ baa ngi koy njaboot gaa ngi koy fàttali sëriñ bi di ko fàttali mbooleem waa kër sëriñ Bara yëpp bàyyiguñu kenn góor ak jigéen mag ak ndaw di ko fàttali ñëpp bàyyiwuñu kenn njaboot gi itam di fàttali mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu mboolem ñi nga xam ñoo ñuy seetaan te loolu mooy li nga xam ne moo nekk bëgg-bëggu sëriñ bi nga xam ne mooy woote bis bi mooy li nga xam ne moo jëm ci njàng alxuraanul karim loolu sëriñ bi mi ngi koy fàttali njaboot gi di ko fàttali mboolem daaray kaamil yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ak yi nga xam ñoo nekk bi bitib Touba. te bu ñu ci tuddee sëriñ xaali jaxate dafay mel ni ki mën naa yóbbaale mbooleem daara yi yi nekk tubaab yëpp ak daari boppam ji nga xam ne moo nekk Touba Sam di ko fàttali mbokki jullit yëpp di ko fàttali mbokki taalibe yëpp mu mel ni kii nag bala ñoo yegg ci bis bi nga xam ne moom la màggal muy samedi ji di ñaar fukki fan ci weer Touba bii ñu nekk dafa am bis boo xam ne moo ko jiitu mooy ci alxames ja dafay am jataay boo xam ne sëriñ bi daf ko tuddee jataayu murit mooy jataay boo xam ne jataayu jàng xasiida la jataay boo xam ne jataayu jàng alxuraanul karim la sëriñ bi di ko waay di ko waajale di ko laytaale laytaalale bis boo nga xam ne moom lay defal waay juróoma di sëriñ Cheikh Thioro Mbacké loolu nag bu ko defee yaakaar naa ne delloowaat na cosaan la fa mu ko war a delloo ndax bu ñu fàttalikoo tuuti ci ginnaaw sëriñ Cheikh bëgg-bëggam lépp alxuraan la woon waaye sëriñ Cheikh bëgg-bëggam lépp mu xasida la woon ba jataay bi nga xam ne sëriñ baa ngi ko ci fàttaliku muy jataayu ñaan dafay mel ni ki bokk na ci jataay yi nga xam ne sëriñ bi daana ko faral di def te booba xëy na mën naa am xel timul woon ci ni jamono dana dox bañ soxlaa ko nii ñu ko soxlaa léegi kon bu sëriñ bi dee fàttaliku sëriñ Cheikh Thioro Mbacke waaye juróom wa di ci jiital loolu dafay mel ni ki defal na sëriñ bi li nga xam ne moom la gënoon a bëgg kon loolu itam dafay mel ni ki njaboot gi ñu ngi koy fàttali mbooleem jullit yëpp di ko fàttali mbooleem taalibi yëpp guddi ak guddi alxuraan googu ñi nga xam ne ñoo koy taxawu sëriñ Jili Sall wax na ko léegi di sëriñ bi jox leen ci ndigal mooy mboolem sëti sëriñ Cheikh yi ak mboolem turandoo sëriñ Cheikh Thioro ak mboolem taalibe yëpp ñooñu nag bu ñu ci tuddee sëriñ Cheikh Thioro Mbacke xam ne mooy moom Cheikh Amadou Bachir Mbacke dafay mel ni dana mën a yóbbaale mboolem turandoo yëpp te wax nañ ko léegi ci tàmbali bi ak sëriñ Cheikh Thioro Mbacke moom sëriñ Amar Fall Mbacke dafay mel ni bu ñu leen tuddee rek dafay mel ni tudd nañ mboolem turandoo yëpp kon dafay mel ni loolu itam ñoom ñoo koy taxawu ñu ngi koy fàttali bu baax a baax. mbokk yi nii seetaan fu ñu mën a nekk ak di ñu déglu noo ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ci jataay bu sell bi nga xam ne dañu ciy fàttaliku kenn ci njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara muy Serigne Cheikh Thioro ci teewaayu Cheikh Mouhamadoul Bachir Mbacke mi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot gi ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak kilifaam yu baax yi nga xam ne moom la feggoon muy Cheikh Abdoul Aziz moom Serigne Ahmed moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ak Serigne Mourtada Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadim jëmm ji nga xam ne nag moom la ñuy fàttaliku di waajal bisam mu war a doon gaaw incha allah di ñaar fukki fan ci weeru juillet fàttaliku ko mooy fàttaliku alxuraan fàttaliku ko mooy fàttaliku Serigne Touba ndax dundam gépp weesuwu loon jaamu yàlla ak lëggéeyal Cheikhul Khadim ba mbooleem ku mu jamonoon teel xam na aw meloom xam jëmmam xam jikkoom mu nekkoon koo xam ne it eh, diine ji mu bokk diine jëmu ko ndax la wartee fi diineem yëpp defoon na ko waaye yoon wi jëmu ko ndax yoonu yoonu lëggéeyal ak jaamu yàlla te loola rek ca la nekkoon waaye ak bokk it jëmu ko ndax ak bokk boo duggee ci biir guy mbind wala nga dugg ci biir kër Serigne Touba defe naa da nga fekk fu bari ay Serigne Cheikh Thioro waaye boo tabbee ci biir këram yi da fekk ñu baree bari ci njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine wane rek melawu mat wi nga xam ne amoon na ko ak yitte juréy ji nga xam ne amoon na ko mooy roy gaañu baax ñi rek fexe ba bàyyi aw tagg ci jamonoom te mooy Serigne Cheikh Thioro moo baax nga xam ne wuuf na ak njabootam yar leen tàggat leen te ku xool jataay bi xam ne loolu matale na ko ndax waxtu wuñ koy wooteele kenn ku ci nekk Serigne Mourtada wax na ko léegi bi mu ñëwee dafa wax ne jataay bii lu tax mu def nii mooy dafa tey moom day ak màggalam te boo demee ci Cheikh Abdoul Aziz loolu lay wax koo dem loolu lay wax te loola Serigne Cheikh moo doxee taxawaay bu mel noonu kon nag buñ koy fàttaliku di jàng alxuraan wutal ko bis boo xam ne dañ ko tuddee jataayu murit kon day mel ni moom murit googu nekkoon ci moom looloo tax te yàlla fayee loolu te melay murit mooy bëgg sëñ bi jëfe ndigal bàyyi déngat bàyyee ko sa bopp te loolu Serigne Cheikh coro defoon képp ku mag moom Serigne Cheikh yërëm na la ku ko mag jox na la cër commencé def na leen li boppam kon yal na yàlla nangu ñaan yëpp baraka Cheikh Khadim ñoo ngi leen di fàttali incha allah alxames ji ndax sëriñ bi yittale ci moom lool ndax bu ñuy jàng alxuraan di jàng xasida ñooy ànd ndax kitaabati dikrun wa shukrun wa sadaat allahu arshada xilaami wal kon alxuraan jàng xasida yi ñooy ànd sëñ bi di ko santaane ñëpp ñu dox ca ak wàccaayu àllarba ji incha allah jataay bi nga xam ne xam ngeen ne bu ma saa ñëw dañuy woote jataay yaatu tey ñu def ko jataay bu mag boo xam dañ koy daje kër sëriñ Cheikh Thioro moom Cheikh Abdoul Bachir moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ngir waxtaane ci dund ak jaar-jaar ak liggéeyu sëriñ Cheikh Thioro kon yàlla yàlla yàggal fi njaboot gi te leen yàggal leen a boole yàggal leen a jàppanal kattanal leen ba li ñu yéene seen way juróom ko ni ñu bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi am mbégte yëkkati suñu kàddu ci turu Cheikh Mouhamadou Bachir moom sëriñ Cheikh Thioro ginnaaw bi mu amee ndigal ci turu kilifaam cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne mooy jawrini cheikh Mouhamadul Amin di fàttali ak yégle bis bi nga xam ne moom lay amal di ci fàttaliku wéy juróom cheikh Serigne Cheikh coro moom cheikh Mouhamadul Amin bis bi nag mi ngi ci woo mboolem mbokk yi mboolem wëllëre yi mboolem xam di jàmm yi ñi bokk ci askanu maam maaram yëpp mi ngi leen ci woo ak ñi nga xam ne ñu àndoon ak cheikhul xadim seeni woy jur àndoon ak cheikhul xadim bis bi nag li ko ci gën yitteel ni ko Serigne la ju woon léegi ku xam Serigne Cheikh Thioro xam Serigne Cheikh Thioro ak alxuraanul karim ak xasaydu Cheikhul Xadim mu ngi fàttali ci bis boobu lu ci waay man ci njàng alxuraanul karim mu def ko jàlle ko Serigne Cheikh Thioro ak lépp lu ci waay man ci ñaan mu def ko Serigne Cheikh Thioro Mbàkke muy fàttali nag bis bi nga xam ne moom la ñu amal ci alxames yi bis bu ko yitteel la bis bu mu fonk la ndax la bis la boo xam ne bu buñ eggee ca bis bi ñuy màggal dana galfan ci gan ñi ba ni mu war a taxawoo ci ñaan ak fàttaliku du ko man moo tax muy soññee ci bis boobu ndax ndimbal la ci moom ak njaboot gi yëpp ndax bu bis bi ñëwee dana galfan moom ak njaboot ji ci toppatoo ak teral gani Serigne Cheikh coro yi moo tax bis boobu mu def di ko waajal bis boobu bis bu ko yitteel la muy alxemes di di jataayu murit mu di ko mal at mu jot kon mi ngi ci soññee bu baax a baax di ñaan sunu borom

karim jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ngeen dolli ay ñaan ba lañ liggéey lépp ci kër gi Mbàkke ñu mën ko yàlla may ñu ak wér gi ñu ko yeggalee jërë ngeen jëf a ngi jéggulu tuub tey jéggulu bis baa ngi noonu rendez-vous baa ngi noonu gaaw ñaar fukki fan ci weeru juillet 2019 fii ci Touba Guy bind sëriñ bi ginnaaw bu mu sante ñépp ci li weesu woon ma ngi leen di séentu tey ñaan ku ci teew yàlla faj sa ajo ci barkeb Cheikh Mahamadul Amin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa يا ربنا إن الورى تدرى لأوليائك معا ليشفعوا